le sous-préfet monsieur le maire euh, di nuyu kilifa yi fi teew yëpp promoteur bi commerçant yi euh, di jiital ci nuyoo bi euh, Serigne Mountakha nga xamante ne moom mooy suñu kilifa fii di am kontante visite bi ndax président la république daf ñoo confié programme de modernisation des marchés mu nekk programme bu ko ñor xam naa bu ngeen di suivre conseil des ministres dangeen ngeen di seetlu ni du bu benn ñaari conseil des ministres yoo xamante ne waxul ci marché yi ndax nekk na programme bu ko ñor ndax marché yi gis nañ ni euh, ci semaine yi mois très fréquemment dangay dégg marché bu lakk donc te à chaque fois bu marché lakkee rek alal bu bëree baree bari moo ci lañ ciy ñàkk di wax ni nag ñu bëggoon balaa ñu koy rendre compte ba jox ko suñu feuille de ñu xam bu baax fan la marché yi toll donc looloo waral suñu tournée bi ñu tàmbali say euh, ci ndigalu président de la république donc ñu am programme bu toll ci 69 euh, virgule 5 milliards pour ay 81 marchés à travers le Sénégal fii ci Touba ñu ngi fiy prévoir un marché d'intérêt régional ndax dafa nekk marché boo xam ne dañ ko prévoir ci ci région bi waaye ci ndigalu président de la République ak engagement yi mu jël ñu ngi koy orienté fii ci marché bi waaye di wax ni fu mu toll nii ci tàng-tàng bi xëy na mënuñu ci jël euh, benn engagement ci période bi ci délai yi ndax dañuy soxla déjà liggéey bi nga xamante ne waa AGETIP tàmbale nañ ko ak promoteur yi mu àgg ñu organiser benn réunion boo xamante ne dinañ ko tenir ca ministère ba ñu nag waa AGETIP ak euh, promoteur yi mu nekk réunion technique boo xamante ne bu ñu ci jógee danañ ko jébbal comité bi yi nga xamante moom la ñu mettre en place comité programme bi comité de pilotage programme de modernisation de marchés ndax pro comité boobu am na déjà benn sous comité buy liggéey ci architecture bi am na benn sous comité buy liggéey ci wàllum euh, kii coût bi mu am beneen boo xamante ne mu ngi liggéey ci nan lañ koy gérer ndax dañu seetlu tamit nii bu fekkente ne dañuy euh, tabax ay marché naan dañ koy moderniser ba pare moderniser wu nu ñu yoree marché bi boo moytuwul lañ ci soxla duñ ko ci am donc il faut liggéey boobu mu am bu pare bu comité pilotage boobu defee ay conclusion ñu jëbbal ko président de la république mu ñu ca jox ndigal pour ñu mën a tàmbali mais li ma mën a jàpp mooy marché ngiraaneen bi nekk na loo xamante ne lu ko ñor la te ñu ngi ci liggéey bu baax a baax a baax donc daal loolu laa ci bëggoon dolli rek euh, di ñaax ñëpp ñu jàpp ci donc question bi nga xamante ne euh, Aziz posé na ko defe naa promoteur bi indi na ci ay leeral donc mu nekk euh, projet boo xamante ne ñun ñëpp rek nañ ko boole porté bu ko defee rapidement ñu mun ci am bunt ndax bu amee bunt day nekk suñu njëriñ ñun ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant